beneen laaj bi xam naa day jëm ci ci dëkk dëkk bi ñuy wax cees ndax xam nañ ni kenn du kenn mënul tudd sëñ sëñ Xaadim Lo Gaydel te tuddoo Thiès xam naa di doon laaj sëñ bi rek lan mooy sabab bi ak lan mooy jaar jaaram ak dëkk boobu di Thiès jërëjëf Thiès dafa nekk dëkk boo xam ne dama faa feeñee jamono. yàlla defit ma bëgg ko li ma génn dëkk bi am jàng ma fa génne ni ma la ko waxee diir bi nga xam ne jàng naa diir bi nga xam ne wëri naa waaye mosumaa ñàkk di toog Cees fu ma mën a yendu ci àddina rek walla ma fay nekk fanaan si Cees ma koy gënal fu ma mën a demit ci àddina yit gan laa foofee laay tudde sama bopp waaye Cees moo ma koy gënal ndax fa ma sëñ Tuubaa dëël Cees googu nag yàlla def na ni sëriñ Touba ci boppam da koo bëggoon ndax bëgg Cees it indi na moom sëriñ bi ci boppamit jaar-jaar yam fa jaar ak diir bi nga xam ne tubaab bi sax yëkkati na ko boobu jamono muy wéy di dem jaar na ci Cees googu toog naa ceeg mag mu baax yàlla na yàlla dolli aw leeram di alaaji Modou Njëgën maam alaaji Njëgën nettali na ma moom ak baayam alaaji Amadou Baro Ndiéguène di sëriñ tubaa ñëwee foofu la ca dox muy histoire bu gudd gudd gudd nga xam ne baayam féete woon na Serigne Touba ci wàll wi nga xam ne la doomi soxna di féete doomi soxna mooy diggante boobu sëriñ bi ñëw foofu nekk ci euh, finance foofu tubaab bi indi ko fa li sëriñ bi di soxla ci xalima ak i daa wala warga wala yu demee noonu booba alaaji du Baro Njëgën la ko sëriñ tubaa daan fam ko daan wuti ji ka gënoon a rafetle loola ca dëkk ba di waa kër alaaji Isma Ba booba maam Cheikh Anta wax leen ne leen lu fa sëriñ bi soxla ci loolu moom ak yor na rafet yére yu rafet yére yu rafet booba mooy kaas yeeg baraade yi alaaji du Baro maam alaaji nee na ma foofu lañ demoon sax jëli fa baraade yi gën a rafet ak kaas yi gën a rafet indil ko sëñ tubaa mu koy jëfandiku. ci diir boobu nga xam ne boobu sëriñ bi ci boppam Cees googu booba euh, jaare na fa noonu ba moom moomu baayam ci boppamit bi fa sëñ bi tolloo ci waar a jóge bari na lu mu dénkante ak ñoom ndax seen diggante ñoom yàggoon na ndax fekkoon na yeneen ak yeneen yoo xam ne ba ca bi muy jógee tëngéej googu boobu sérif ba mu nekkaloon di ko yebal ci sëñ Tubaa mu fekk sëñ Tubaa Mbàkke Kajoor boobu ñoom ñooñu am na nu dëggan diggante yooyu am na nu taxawaay yooyu waaye la ca gën a wér nag mooy moom diir boobu sëñ Tuubaa nekk foofu nag booba moom mooy doxal sëñ bi lépp loo xam ne wàllu googu la sëñ bi nag jëflanteeg moom ñaar sëñ bi ne ko maa ngi dem ci géej gi daal di wax alaaji Amadou Baro ne ko taalibi bu ma am ci dëkk bi bu fi génnee àddina damaa bëgg yow nga jullil ma ko ndax yow koo koo fi jullee rek sama borom yàlla dina ko jéggal daal di koy doglu ay ar armel ne ko dinaa la wa yabal Cheikh Ibrahima Fall ne ko Ibrahima Fall bu dikkee barab bi may wax ndax booba sëñ Touba doxul jëm foofa te fekk na ne El Amadou Baro fii nga xam ne la gendarmerie euh, Thiès bi nekk jàpp wet googu mooy fa ma njëkk a gàmmu ci jàpp rek rex boobu boobu moom foofu la këram nekkee woon ba bi nga xam ne yëkkati nañ ko. di ko jox fii mu nekk mu nga xam ne titre foncier boppam la muy xur woowu moom ci la ñëw ci xur wi foofu muy fii ñuy wax kër Maam Alaaji moom foofu la ñëw def fa këram daat fay toog bi mu defee loolu it sëñ bi daal di yabal Seex Ibra ci li nga xam ne Maam Alaaji ma ko nettali ci man ma jëlee ko ci moom ci loo xam ne amul benn euh, riwaay yu dugg ci biir ba mu ñëwee sëriñ bi ne ko Ibra Fall dina la wax barab ba nga xam ne kun fa suul rek dana mel sama borom yàlla dana ko jéggal ne ko koo jullee ku nekk sama borom dana ko dana ko jéggal barab boobu mooy la uuf këram moo ko penku ca kanam jàkka ja bokkut ak armeel yi siiw ñu naan armeel yi kër maam alaaji gi ba Seex Ibra ñëwee dafa simmi aw dàllam di ko rëdd Seex Ibra di ko rëdd di ko rëdd ba yeggale daal di ne alaaji Amadou Baro ne ko barab bii la sëñ Tubaa doon tegtale barab baa ngi nii Seex Ibra daal ne daal tëdd ci kanamam mu néew ne ko sëñ Tuubaa nee na ko jullee ñu jég ñu jégal ko kon man jullee ma ba noppi bala ngay jàll ci keneen loolu lii kon Thiès bari na lu fa am sëñ Modou Moussa Mbacke sëñ Tuubaa yemal na ko fa mooy kër gii nga xam ne la soxna Bintu nekkoon mooy kër gi tey Moussa Sourang jiite ko sëriñ bi yabal na fa sëñ Modou Xabbaan muy euh, euh, baayam sëñ Mandumbe mooy seen sanc bii ci Xabbaan maam Cheikh Anta it sañcam bii ci tubaatul nekk na fa waaye moom sax am na jamono ci boppamit it nekkoon na foofii nga xam ne mooy sañcub Cheikh Ibra Sarr Njaañ bi muy fii kër Baye sëriñ saar gi nekk te sëñ Basirou saar jaamu sëriñ Touba seen kër googu yi kon Cheikh Ibra Sarr Njaañ mu ne fa Cheikh Ibra mii nga xam ne sëñ Touba da koo defoon ne jaaseem wala mu def ko benn teg tegtalam ci loo xam ne luy niit la mu ngoy niital muy turam yi mu tudd di Lamp Cheikh Ibra niitu la woon ci sëriñ bi niit goog yi nga xam ne nekkoon na ko it moo indi sancam bii nga xam ne moom la sanc ci Madina Fall googu ak Kër Cheikh googu ak Kawsara gi nga xam ne sëñ Modou Moustapha Fall ak Sérif euh, Assane ñoom ñoo féete si waat foofu ñooñee nag loolee la wër ba nga gis Thiès sanc bii nga xam ne sëñ Ablaye Yàqin moomu nu tudd léegi nga xam ne daanaka kër sëñ Fall googu dégg nañ ko fa sëñ Saaliw miit it ku ne xam na ko diggante boobu mu nekkoon ci diggante boori eh, eh, jàpp eh, boori xàbbaan ak boori wet yooyu yëpp nga xam ne moom foofu la nekke woon ci wàll googu ba Cees ci boppamit it fii ñuy wax jàmm gën këram a nga fa waaye fii nuy jullee tey jii ñu koy wax jàkkay murit sëñ Saaliw moo ko moomoon ba nga xamee ni murit yi dañ daan def ñaari julli yi bu ma saa am ñu leen di wax baat yoo xam ne kenn mënu koo dégg ca lañ demee woon ñoom magi murit yooyu yëpp booba ku ñuy wax Alaaji Moussa Diop moo jiite woon daanaka fédération muriti Thiès yëpp ak mag ña ca nekkoon ñoom ñooñu ñëpp ñu daal di daje ñu dem ci sëriñ bi Alaaji Modou yi nga xam ne daan na fa jiiteek ak ñoom ñooñu it ak waa ngëyeen yéeg ñoom ñooñ ñëpp nga xam ne boobu ñoo yor taxawaay yooyu ca lañ dem ci sëñ Abdou Lahat ban demee wax sëriñ bi ne ko day def bu it amee amuñu fu nuy jullee bu àjjuma jotee amuñu fu murid di jullee amuñu it menn pénc mun fa mën a daje sëñ laat Lahad leen bu soobee yàlla loolu danaa ko fajtal ca la sëñ Saliou jël moom titre foncier bii nga xam ne moo sës ci kër Mourad Kébé googu janook alasaar bi muy fii sëñ Saliou Touré nekke booba ci la sëñ Saliou daal di jël këyit yi ñëw jébbal ko sëñ laat ne ko barab bi sama barab la def naa ko àddi yi sëñ Touba muy jàkkay murid yi njabootug sëñ Tuubaa gépp daje nañ fa njaboot gépp nag fuñ ci tudd rek manes na di ca jàll di ca jàll di ca jàll benn kër eh, desut kër sëñ Tuubaa yëpp daje nañ kon foofa it bu fa sëñ Tuubaa ci boppam it amul woon benn yaakaar ak bëgg-bëgg du fa yebal dama fa yebal te yebal gi tàmbalee ko ci sëñ mu Moussa ba ci sëñ Fallou ku ci nekk tey koo ci dem këram a nga fa mag li wër raison bi yëpp it dugg rek danga fa fekk cheikh bu baax mag mu baax njaboot gu baax sëñ tubaa dëgëloon leen foofu lu nekk fa ci di ko liggéeyal kon ceesit it man yàlla moo def ma bëggal ko sama bopp ndax yonent bi sax lim gënoon a bëgg tey du xëy na sunu borom màkkatal mu karam mii nga xam ne daf ko bëggoon lool keroog bi ko fa yàlla di ko fa di ko yebal muy génn ci laaqu sama bi xësal bi walidin wa maa walet ah yàlla sama borom da ko xamal ne ko dëkk bii nga gën a bëgg bis ni ki tey danga ko gàddaay nga génn ko ndax fi nañ la juree fi nga juddoo te fi nañ la juree keroog la daal di génn jëm màg jëm madinatu munawara ñu teeroo ko fa teer ba waaye xolum yëpp nag màkk la woon boobu jamono kon Thiès yàlla moom mu boole ak ñoom ma feeñee fa jamono kilifa yu bëri ci yoon wi fa la nu feeñ jamono ñu ci bëri xam naa xam naa ko ne euh, que ne euh, ku ci nekkit waxtaan na ci ak manit waaye Thiès moom dëkk la boo xam ne dëkkub taarix bu am solo la